xoolal xoolal xoolal ma nii xoolal ma rek xar mi sonn na kii sonn na ah lépp boo xool deecee deecee sama xar mi loo ko jox nii ba mu soj xoolal lii rek seet teet teet teet man man man lii rek laa mës a sama àdduna xoolal xoolal xoolal ma xoolal xoolal ah xaaral amoon naa fii sax kii ma ma ma eh de jogo jogo jogo jogo jogo ñam jogo moom temps yi bu ko mais eh eh eh Mbaye yow laay waxal de boo ko di nga xam de lii mooy lan aw droit sama xar bu bu bu sojee ma ñannu ah am nga droit boobu ba nga sànnati moo man tey laa ba àdduna yow est-ce que nga say xar yow sa xar bu lii du xar matul tabaski xoolal fii macha allah fa tabaarakalaaw da ngay xool fi xool sa bopp yow yaag sa xar yooyu yéen a yem lekk ñu lekkoo. dem ba ñam nga. kan. du dem ba ñam nga. man. béy teewul wax bi rek yow del wax rek. jàpp xar yi nga xam ne seen bakkate yëpp ñu ma ko sànni. xar day service day rafet. Eh. xar day rafet. yow xaru tiaga nga yow yow tiaga nga xar yi càgga lañ. te nag naa la xamal benn affaire li nit ñi di laam-laamee ci mbedd mi maa ngi koy yëg yow feebar bi daa dugg si nit ñi joxe buur fa di teel tëdd nga jàpp doomu jàmbur yi di fat lépp maa ngi teg seen bët si sa xar yi ki nga boo dogloo tabaski bi ci biir prison ba la la nar ko maa la li yow loo ma xamal li ma la xamal la bëri man yaraax laa dëkk yow nga dëkk yëmbar buun sang bi c'est le sang de yaraax yow xotti sa deret xam nañ fi nga joge waa la nga jóge waay dimbali ma waay ci seen merde salaamaaleykum waaleykum salaam waaw na nga si yaa ngi si jàmm lu waay def boppam na nga def ah, nga yegg si nga yegg si nga yaa ngi nii allah eh. macha allah bu dee xar rek boo ci bëgg. mais sëñ bi sa xar yi sawaruñu dara. jërëjëf jànk. xar boo jënd da ngay xool xar bu baax xar da ko war jënd mu jóg taxaw. man bëgg xar bu dëgër yëngatu ci bëgg. dina ay Elton Tyson yaa xar yu baax la allah dama leen yar sama kër. yaa ngi dégg tanoor waaw te bu si nekk xale bu ndaw la gaaw macha allah ay xar lañu kon samay xar dañoo samay xar <laughs> ay dum leen dum leen dum leen dum ay jaa xar xar man xar bu perturbé laa ba waaye yii dañuy perturbé xanaa déggoo loo ngi nii ah, ay cos yëngatu leen wane leen seen bopp xar yi di mel ni ku ñu feebar ii ba waaw kay jànk <laughs> kontaan naa gis nga nii laa ko bëggee xoolal ñoom Tanor Tanor ay ay ay ay ay ca ca ca nii la ana xam day sawar jóg leen jóg leen jóg leen xoolal Malick Malick a nii ah gis nga moom nag nii la da ngay raay rek da ngay raay. acca acca acca Sall jógal Sall jógal jógal moom man Sall mi ba rus na waay ah xool ni mu lekk bari. man bu lekke bu sour day day tok xaw voilà day charmant quoi te daa bëgg jigen nak <laughs> nga sa jigen day tosé merci bon toogal merci voilà ñu tok waaw jang na def alhamdullilah tarikal eh, kon eh, bo ci bëgg gi nga bëgg mo zalmi de ah zalmi bëgg nga waaw waaw gis nga de la do mom mom ma sha allah xar mi dañ ko yar. neex la am ak gen wal mu ngi ni xar mu ndaw la xol bo xoolee kanam gi ni xam ko. mom euh, nga bëgg ni walaay sañse nga nak de. ni la jigen day civilisé bëgg bopam soy dem di jënd ki nga sol rafet ñew nit ñi sax dañ lay naw. oui ana musse euh, mom kana mom lu tax ñew non man awma ci jëkkër. ah yow kon jank yow tabaski wax na la wàcc na la. mu ngi jëkkër ni eh, eh, ay waay waay waay ah ah ak jamono man de ba ma dalee dugg ci njaay ba tey tey laa mës a gis xale bu toll ni yow mu taxoon ni day jëndal papaam xar ah doom lii bu ko bàyyi de yow yàlla na la yàlla jàppale barke nag bàyyi ko yor te sa baay noo ko defal dana feeñ ci say doom kon nag lii yàlla nga màgg ba say doom di la jëndee xar tamit jërëjëf kontaan naa ci waaw Zal mii nag seere gannaaw Zal maa ngi ko doon jaay maa ngi ko doon jaay cinq cent mille tey wàññi naa la ko ndax ni nga koy jëndal sa baay tax léegi Zal mii jaay naa la ko trois cent mille jeex na maa teg si maa teg deux cent mille ci sama participation cent mille rek baax na sa baay moom du kontaan moom. yow demal wax ak sa sa malade yooyu yóbbu leen ñu dem faj leen ko test test demal ñu def leen test fi ma da corona jegeel fii rek taxal fof di wax madame waxal 300000 yi nga dégg la tiital. def ko 250. waa jànk bàyyi ko foofu rek. 250 laa yor. ëpp na si. ah. foofu la yem. waa jëla sax jëla jëla ko Pablo. Pablo kaay tekkil ma xam ne yóbbul ma ki xaaral Pablo ñëw ki yóbbul yóbbul la waaw kay mën ngaa jóg ñu jëlal la tax jërëjëf nii la bu la dara dindi ci merci mais amu koo jëkkër voilà merci ok yaa bu demee papam dina kontaan baayam du kontaan bu baax

ay waay xaar ma ree man da ngaa xuuxaan da ngaa foog ni sa garab bi xaw ma ñi gam xar la billaay bi xar yi ngay jaay nga siy lekk di si faju da nga xuuxaan am naa doom waaye nangu waaye da nga kat ana say doom yow nga xuuxaan ana say doom kon man man ba may doom xam nga yow da nga kaa wax si ni man rajo laay takk baaful laay woote wax ko ca kaw. waaw jéemal fa xam nañ li xew xam nañ li xew. da nga ko waay mu am mbay nooy lekkee tàngal. nooy màccee mbay nooy màccee tàngal. mbay sa mbay nooy fajee sa xuuxaan waxal loolu.